alors commissaire euh, Keita euh, gannaaw bu ñu la nuyoo tey dañu la convoqué woon ci euh, division des investigations criminelles est-ce que mën nga ah. xam moo waral convocation boobu ah convocation biñ ma jox tey de pour benn vidéo wala benn daggitu vidéo bi nga xam ni dañ ma doon laaj ndax man maa nekk ci vidéo bi ak yi tamit ndax lii nekk ci vidéo bi ci ay wax ci man la jóge loolu la woon ma ni leen man effectivement vidéo bi man la hmm. li ñu wax ci vidéo bi tamit man la la maintenant nag ñu jël wax ji nag léegi bugg ko wëlbati dans le sens de yow est-ce que mën nga indi firndewu li nga xam ni moom nga wax ci vidéo bi lan nga wax ci vidéo boobu vidéo bi li ma ci wax mooy mbiru parce que noonu laa ko mën a waxee li dox diggante président de la république ak euh, ak euh, premier ministre bi ak li ñuy wax ci ni seen diggante neexatul ak liñ ci indi ci ay xew-xew par rapport ak affaire bourse yi nga xam ni américains yi moom la ñu joxe ak li ñuy wax ci mbiru déggoowuñu woon ci président bi muy dem tuuba voilà loolu lan ma doon laaj ndax mën naa indi firnde ci ni loolu dëkk la wala du dëgg ma ni leen man du man maay indi firnde parce que lii dafa jiitu sama wax hmm. nekk ci espace public bi donc dama ko commenté man dama cee waxtaan dong est nag waxtaan ci dafay la même chose que ni indique li ñuy wax diffusion je n'ai pas diffusé quelque chose qui existait d'abord hmm. dama ko fi fekk muy wal ci place publique bi ma wax ci bu fekkee nag ni wax ci li nga xam ni mu ngi wal ci place publique bi ak indi fi xew-xew benn la ah je ne plus man daal foofu laa toll ci wax ji wax ji nag maa ko wax mais indiwuma ko fi loolu rek mooy wax. d'accord alors euh, dañ la convoqué waat euh, est-ce que yaakaaroon ni xëy na dañu nekk ci say tànk parce que yow tamit lu ñu mën a wax opposant nga naka nga gisee démarche bi ak euh, li fait que ñu convoqué waat la. gis nga ñun ku nekk da nga am rôle booy jouer ci Sénégal ak responsabilité. suñu mënee wax Sénégal mu tuya dix huit millions à vingt millions de Sénégalais ñoo fi nekk ku nekk ci ñun am cër bi nga xam ni ak li nga xam ne sa responsable par rapport ak li ci réew mi man du ma doxee yaakaar ni ak si nañu fii daal ñoom ñu ngi ci seen rôle man maa ngi ci li nga xam ni moom laay def su fekkee dañ may convoqué waat suba laaj ma dinaa wax ak ñoom ci liin ma laaj su fekkee dañ may convoqué at suba arrêté ma fëri layil hamd parce que àddina noonu lay doxee nekkuma ci ay émotion nekkuma ci neex nekkuma ci naqat yi dama nekk rek ci ni citoyen sénégalais la bi nga xam ni taamu ma nekk ci espace public bi yàlla moom ma jébbal espace public bi dama ciy dox sama responsabilité simplement nekk samay tànk wala nekk ñàkk nekk samay tànk bon je n'en dis pas plus par rapport à cette question là en tout cas ñoom ils sont dans leur rôle ñu ngi def li nga xam ne moom lañu foog de war nañ ko def man ak ñoom bokkuñu man damay commenter li fi xew di ci wax li nga xam ni moom laa xalaat ni su ma ko waxee dina jëriñ réew mi dina jëriñ askan wi. Mm-hmm. man foofu laa toll. audition bi naka la demee woon est-ce que ça s'est passé dans les règles de l'art parce que yow tamit nekkoon nga. takk dem euh, daan nga euh, entendre ay nit également. ça ne peut pas ne pas se passer dans les règles de l'art parce que jusqu'à preuve du contraire réew mi dans les limites de ce que les gens peuvent tolérer yoon rek moo fiy dox suñ ma woowee donc din ma laaj dañ may mën a laaj ma tontu mu yem foofu. mais mënuñu ma laaj may tontu ñu ciy teg leneen kenn mënu ma ma wax li nga xam ni bugguma ko wax kenn mënu ma forcer ma bañ a wax li nga xam ni moom laa bugg wax donc loolu la sa s'est passé normalement dans les règles da amoon avocat bu la assisté wala yow rek yaa fa nekkoon. mooy samay xarit woote woon nañu ba maître Sall ñëwoon na. maître Amadou Sall ñëwoon donc moo ma assisté quoi. D'accord. Alors, un petit résumé en français. Commissaire, vous avez été convoqué à la division des investigations criminelles euh, cet après-midi. Quelle était véritablement la raison de cette convocation? Bon, sur euh, une affaire de vidéo, une vidéo dans laquelle j'apparaissais pour tenir quelques propos qu'ils ont jugé devoir me rendre. Ces propos étaient relatifs aux relations qui sont jugées délétères par beaucoup de gens entre le président de la République et le Premier ministre, mais aussi des propos qui portent sur quelques événements qui sont dans l'espace public et qui tiennent euh, au déplacement du président de la République à Touba et à l'avis que le Premier ministre aurait eu par rapport à cette histoire-là. J'ai dû commenter tout cela et voilà, me semble-t-il, c'est le fait d'avoir produit cette vidéo en commentaire qui m'est reproché. Mmh. Comment s'est passée votre audition euh, Dans de bonnes conditions, en fait. Je veux dire par là que l'audition, c'est entendre quelqu'un, lui poser des questions et attendre qu'il vous réponde. On m'a posé des questions, j'ai répondu. On ne j'ai répondu. On ne m'a pas obligé à répondre dans un certain sens. j'ai répondu tel que j'ai pensé devoir répondre, donc ça s'est passé tout à fait normalement. Vous avez été assisté par des avocats J'ai été assisté par Maître Amadou Sall, que mes amis ont fait venir. J'ai assisté à l'audition d'un bout à l'autre. Vous avez été enquêteur, commissaire. Euh, à quelle tournure vous attendez-vous après votre audition de cet après-midi et votre reconvocation demain Bon, vous savez, euh, la tournure, elle ne tient qu'à ceci. de fait, on retient quelque chose qu'on peut me reprocher au regard de la loi, quelque chose de répréhensible donc. Et la suite sera qu'il me garde ou qu'il donne une suite de poursuite à cette histoire-là et consort. Ou bien qu'il juge que ce que j'ai fait ne mérite pas autant de mesures, et il me laisse partir. Maintenant, de là à anticiper, sur cette question-là, je ne me vois pas en train de le faire. Parce que je suis celui qu'on a convoqué, celui qui la déclaration, J'ai fait la vidéo deux bonnes fois. J'ai répondu comme étant quelqu'un qui a le sens de sa responsabilité par rapport à ce qu'il peut dire ou ce qu'il ne peut pas dire. Maintenant, à eux d'en apprécier parce qu'ils ne sont pas moi. Ce qu'ils feront demain sera ce que je prendrai. S'ils me placent en garde à vue, bien, ce sera cela et la vue continue. S'ils me laissent rentrer chez moi, ce sera cela et la vue continue. Hmm, d'accord. Merci, commissaire. Ok, merci.